Euh, maa ngi euh, gërëm délégation ak euh, UNICEF Nous ñu ñu accompagner tey ba ñu def atelier bu mel nii pour dajale fi journalistes yi ñu xool saytu échanger directement ak délégation du am benn intermédiaire ci différents programmes yi yu ñu tëral yëpp journalistes yi am liberté poser leen question yu ñu sentir me rappeler tout mais mais suñu métier dafa am comme quoi que nous bon euh, communication mais aussi dañuy saytu tout. Nous ñu programme bi nous mu yep ici Nous sommes sur le terrain aussi Nous euh, bénéficiaires nous ñu nous micro Nous réellement est-ce que euh, affaire yi ñu ngi dox comme nu mu comme nu mu waree bon di profito ci occasion bi di ne lii dinañu permettre euh, ñun journalistes yi di bind ci manam mbirum protection sociale ñu xam fu ñuy tek suñu tank xam ban nit lañuy adresser la parole ci daje yu mel nii solo parce que dinañu permettre ñu xam euh, programme yi délégation di di def yëpp par la TOLU, état d'avancement bi ndax euh, nit ñi ñu bon journaliste liberté nous poser question bu ñu sentir di profité aussi occasion bi tamit permettre euh, UNICEF programme bu nous bi mu euh, programme bobu lu ko wundu ak li ci nekk ñu ça en détail vraiment euh, lii daal lu lu lu am solo la di profité aussi occasion bi di remercier les membres parce que dañu bayyi lu bari déplacé wu ñëw fi kon ñooñu euh, ab mbirum protection sociale day wone ne rek soxal na len daal. <laughs> waa réseau bi euh, bañ ko créer ba légui def na 1 an parce que le 28 décembre 2021 mille vingt lañ ko lañ ko defoon légui fi mu nekk ni dañu nekk ci phase yi formalisation nek xam nga mbirum administration yéeg ak wàcc la parce que aussi réseau bi mënuñu ko defar rek bàyyi ko noonu foog ñu wutal ko ay këyit ba nga xam ne bon dinañu mun a permettre ñuy am ay partenaire ak yooyu bon ba ñu defee réseau bi ba léegi gis nañ ne réseau bi am na yokkute parce que am na ay journalistes yu ci bokkuloon yu ñëw comme ku si mel ni ñoom Fatou Sakho ñoom fekk si nañ ñu euh, ci ci ci réseau bi am na nag benn feuille de route boo xam ne def nañ ko moom la ñu compté war dérouler ci deux mille vingt quatre bii notamment atelier bi deux mille euh, vingt trois ngeen baal ma notamment atelier bi euh, ñu def euh, délégation ak délégation accompagné si ak UNICEF am na nag yeneen yuy yuy ñëw ci ci ci ci kanam